suñu numéro bu mujj ci a euh, semaine bi euh, di leen wax juma mubarak la la rubrique religion euh, revient dans Allô Sénégal ak ki nga xamante ni moo di oustaz Mamour Fall ñuy am mbégte di ko ci suba si oustaz ñu ngi lay nuyu di la wax asalaamualeykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu Aïcha ñu ngi lay nuyu di la ziar di la ndokkeel di la wax ne la namoon nañ la di nuyu itam téléspectateur 7TV yëpp di leen ndokkeel di ñu ngi lay delloo ziar bu baax a baax oustaz euh, comme chaque vendredi rek euh, dañuy sekk waxtaan bu am am solo euh, ñu gëjoon ko def loolu waaye tey dañuy kontaan le fait que ñu daal di les retrouver dans Allô Sénégal léegi tey thème bi tey lan lay doon. Aïcha xam nga lu ñu mën a préparer rek bu actualité ñu daf koy màbb. tey li ñu fas yéene waxtaane mooy li nga xam ni mooy jàmm ak fitna jàmm ak fitna. du ñu ànd mukk te tey jii li ñu may ñi toog fii di wax nga sañse sa sañse bu rafet bi di def calendrier monsieur Camara <laughs> parce que jàmm moo am. dëgg la bu jàmm amul woon duñ ko tey duñ ko tal yàlla nag moytandiku nee nañu fitna ndax ne na ngeen moytandiku ay ndax bu ñëwee du yem ci ñi ko ñi tooñ rek. ay du yam ci bopp waaw wattaqu fitnatan la tusibanna alladina zalamu minkum xaasa waalamu anna allah la iqaab kon bu fekkente ni yàlla ci boppam daf ñu moytandikoloo ay lu mën a am ci àdduna muy guerre muy coow muy fitna xam nga fa lay mujjee toog waxtaane ko yonent bi nee fitna mi ngi nelaw yàlla rëbb na ko koy yee fi ñu toll nag réew mi dafa soxla toog waxtaan réew mi dafa soxla waxu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy la mu waxoon ne réew mi bu ñu ko sangul ci waxtaan dana sangu ci deret te kenn ñaanu ko yàlla te fa lañ jëm nit nag wolof nee na balaa nga naan naam ne fa li ñuy woote muy jàmm la koy suuxat mooy dëgg dëgg rek moo ko mën a suuxat te nag dëgg warul am dëgg ci kii bàyyi ka ca des tubaab naan deux poids deux mesures déedéet dëgg moom yàlla rek moo ko moom te gis nga Aïcha ëllëg danañu taxaw ci kanamu yàlla ngir waxtaane fa dëgg dëgg googu di léewtoo ak dëgg ba dëgguk yàlla gi jël dëgg yëpp daan leen justement imam lépp loo gis rek dafa am euh, commencement ñun déjà balaa ñuy ñëw ci àddina am na ñu fi nekkoon mhm. yonent bi ak ay saabaam mhm. ak ña ñu nekkaloon ak mhm. ñoom dañu daan politique mais ak façon bañ ko daan defee am na ñu leen contrôle amoon nañu ay ennemis dañu daan jàmmaarloo ak seen ay ennemis yi mais ci anam bi ñu koy defee tey jii est-ce que ñoom noonu lañ ko daan defee gis nga Aïcha l'islam tollu woon na sax ci jamono foo xam ni ñook ñi nga xam ne bokkuñook ñoom diine di xeex di xeex ba mu jur gi def trêve at moo xam ne atum jàmm la ba bi ñuy ñëw def fatxu màkk yonent bi di ñibbisiwaat màkk bi ñuy ñëw dañ ne bu kenn dóor jigéen bu kenn dóor xale bu kenn dóor màggat képp koo xamante ni fa mu toog la toog te riposté wu bu leen door bu leen dugg kër Abu Sufyaan bu leen dugg kër diw bu leen def nangam bu leen def nangam donc nag boo gisee lislaam waxee noonu yàlla même yonent bi sasam bi ki yàlla yónnee dana ko fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta faddan xalidal qabbilam faddu min xawlik faafu anhum wastaghfir lahum wa shaawirhum fi l amr fa ida azim fa tawakkal ala allah bi ma la yónnee sama yóon yër sama sama messager dama ko kii dama ko laytaayal li nga xam ne mooy yërmande mm-hmm. boo fi nekkoon doon jaay nit ñi tàng xol naqar deret kenn du la faale jéggal leen jéggalul leen te looy def nga diisoo ci ak ñoom waaye nag boo demee ba sës. Mhm. le dernier mot te revient. nga jël sa décision nga jël sa décision. donc réew mi ñi ko seex. Mhm. muy nguur gi ak ñii ne ci opposition bi ku ci nekk na bàyyi xel ne askan wi ñoo ëpp solo sa bëgg-bëgg ñoo ëpp solo sa position lépp lu mën a xew rek jiital ci askan wi waaye bàyyi ci xel yàlla. justement oustaz li fi xew démb ñun ñëpp gis nañ ko euh, du ma ne c'est la première fois c'est la énième fois xale yi di génn ci mbedd mi di toj ay bus di taal di yàqu euh, mars événement yi fi passé gis nañ on a eu des morts ñaanuñu ko yàlla président ne woon na dootu fi amati mais aujourd'hui ci situation bi nga xamante ni jamono ji fii lañu ñu toll les religieux lan ma wax a nekk seen taxawaay wax est-ce que ñoo ngi wax loolu nag am lu ñuy wax am lu ñu waxul am na ñu jàpp ne ni ñuy waxee dafa des waaye jàpp naa ni religieux yi guddi ak bëccëg ñu ngi wax waaye nag mu des ci ndax ña waxal ñu ngi leen di dégg wala ñu ngi leen di dégg ndax nag ku ne xam na ne fii réew mi toll léegi religieux yi ñu ngi leen di néewal doole ci ay kàddu ci ay wax ci doxalin ñu bàyyi xel nag ne Sénégal seen kattan seen doole mooy religieux yi. stabilité Sénégal quatre-vingt pour cent yi tariqa yi la bu ñu sàgganee ba nasaxal ko danañu way mbay est-ce que seen taxawaay fi ñu waroon taxaw ak nun waroon taxawee ci la ñu nekk waa xam nga ku ne yaay xool ni nga jàpp ne noonu nga war a doxalee te mu gën ci yow nga doxale noonu xam nga mag nag mag kenn du ko yedd mhm. rawatina mag moo xamante ne magum lislaam la magu diine la ku am xam-xam la ku am taxawaay la moom mooy jàpp ne jamono jii ni laa war a waxee jamono jii ni laa war a defee te mag ñi nee nañu wala sax moo ko wax mu ne yàlla buy taw ngay fobeere fi ngay fabere du ma soow wow di sonn di nga sonn kon da ngay bàyyi ba mu taw ba fendi nga fobeere ñoom ñu ngi wax fan yii passé kilifa yi ci bari si ñoom génne nañu arrêté nañu mais gis nga saay bu ñu génne ci topp mooy ay xas ay saaga donc Sénégal ñoo war a xoolaat seen bopp xam ne ñun liñ ñu baaxe woon bàkkee ñu ko mooy yar mooy teggin mooy dal mooy xorma mooy mooy mooy mooy li nga xam ne mooy kersa bu fekkente ni nag dem nañu ba kersa googu nga xamante ni moom la ñu xamee woon Sénégal moom la ñu xamee woon suñu ndaw ñu am si suñu kanam ndaw lu violent ndaw lu ñàkk teggin ndaw lu ñàkk kersa ak politicien bu wax dëgg ak nguur guy néewal doole askanam yooyu yëpp boo ko boolee fi muy mujj mooy nasaxal askan. te nag mbokk yi euh, fitna état bi am na ci responsabilité ndax moom moo wàllu stabilité réew mi moom lañ ko dénk waaye opposition bi wut seen intérêt nekkul ci réew mi yàqu nekkul ci réew mi tàkk. Mhm. état bi itam seen intérêt nekkul ci loolu donc li may ñaan yàlla di leen ko ñaan di ko ñaan di ko ñaan sénégalais mooy ñu delloo si seen xel xam ni. Mhm. lépp lu mës a bees. dina mës ràpp lépp lu mës bëri dina mës a li ngay xëccu xamoo ndox boo ko jëlee di nga ko jëriñoo waaye mm-hmm. yow mi ko yor itam jàppal ni tôt ou tard da nga koy bàyyi macha allah la war te jaadu mooy ñoom ñëpp ñu bàyyi xel li nga xamante ni moom la leen yàlla sant ñu nekk ci waaye bañ na saxal li nga xamante ni mooy askan wala ñu néewal leen doole ak ñi nga xam ne ay innocent lañu seen yoon nekk ko ci war a xëy liggéeyi ñu tere leen liggéeyi yàq seen oto yàq seen bagage mm-hmm. loolu du xorma du teggin ak ñi nga xam ne ay woyu lañu dugg ci rax ci biir sàcc alalu jàmbur jël portable nit teguñu ko fenn teguñu ci dara teguñu ko fenn justement foofu la ñuy jeexalee ma bàyyi la rek le message d'aujourd'hui pour la jeunesse ñu xam ni rek ndaw mooy yaakaaru réew réewam ëllëg mhm. Sénégal ndaw mi koy yor mooy ndaw lu yar am teggin ju am xam-xam ju jàng ju am métier ju xam fi mu jëm ndaw lu ràññee daan naa dégg ci ab al amin mu naan ndaw lu fas yéene yor am réew du fecc guddi gi nelaw bëccëg gi waaye euh, du fecc guddi gi nelaw bëccëg gi attaaya ngoon gi ça veut dire que ndaw aussi bu fas yéene am réew du violent du saaga ay mag mhm. yonent bi ne bokkul ci sama xeet mag mu yërëmul xale ak ndaw lu warmaalul mag kon nañu warmaal mag ñi mag ñi yërëm xale yi Aïcha ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di kontaan ci retrouver la di sant Alsaan ak Ousseynou ñi nga xam ne ñoo nekk ci bi ak ñi nga xamante ne ñooy allo équipe allo jërëjëf oustaz Mamour ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci waxtaan wi am na solo ñu ngi lay souhaiter rek nga passer une très belle journée et puis di la wax juma euh, mubarak ba vendredi prochain incha allah euh, mbokk yi des leen ak ñun léegi léegi ñu jël une petite pause et après ñu dikkaat ci plateau bi daal di wéyal allo Sénégal.